salaamaaleykum salaamaaleykum ci li ngeen ne bàyyi nañ ci jaam bu baax ah, ma ñëwaat tey su seen série tay bi laala nag yow loo bëgg ah Marème bu ñëwee di fuuñ fuuñi di def yenn yi loolu nga bëggoon ah Marème du def noonu nag yow ak loo leen am problème am problème soo amee ay gan di ñëw di ñàngal ci sa kanam gan yi parce gan yi defuñu ko dara kon dina kaf ak ñoom dina ñoom yow tam fekk si ko ci rat ah même bu fekkee li muy def gëmu ko sax fekk si ko ci rat ah laala nag yow it nag ah yow tam sa gàmmu kenn mënu koo tànt daal waaw parce que Marème mi bay boo nga gëm yàlla te xam ne moom ci yi nga nekk moom nekku ci de yi nga nekk moom nekku ci waa damay commentaire rek ci kii bi maîtrise bu taay bi ah tey moom dëgg yàlla am na lu ma métti am na lu ma métti trop ñun aaw yëpp maa ngi participé ci commentaire ci Lalla Lalla mere naa ko trop gis nga Marème dafa xam Lalla gis nga wujju boo xamee li nga bëgg ak li ngay bañ am nga problème te Lalla dafa dem ba euh, Marème dafa dem ba xam li Lalla lay bëgg ak li Lalla lay bañ. lan la Marème lu def rek dérangé na ko mais man mais moom lu tey mu def ni def tey lu def koy dafay jaay di koy baax bandi man dama lay gën a nekk bandi gis boo gisee nit ñi day ñëw teg seen naan ay kii dafa baax wala lu mu ko doon tontu sama kii bu baax la sama wujj bu baax la tagg koo tagg tagg tagg ba Marème sax day doom bu ko defee mu xam ne li mu def dara fere yow ko ci mais Marème man ah, kii ànduma ak moom nga genre Marème yi nii nag ñoo tas kër yu bëri mais nag dama ko sowut ak yeneen genre jigéen ñi bi pare jaay ko jukkoy bànni xale bi dëpp mu ne ko kii dafa mën a kii dafa mën a waxtaan ak yooyu dafa mel dafa taxaw lu taxaw ba dem di ko nekk ci xam ne kii bàndiwut kii bàndiwut lallumee naa ma gis bu changé wul ma bu changé wul dina ñàkk seex ndax marem yi ma gis kàppoot a aay yëpp ci ñaareel salaamaaleykum waa Leuz TV jaar naa leen yéen si jàmm ça va naka tey mbaa yéen si jàmm ah macha neex na tey hmm, neex na tey trop macha allah sama gars jaar naa leen ñoom ñëpp neex na nag waaye moom kii laal la dafa dof rek kii Marème Dial kay bu joué théâtre moom it na joué théâtre am ñëw na di foo di kaf di reetu jubóowuñu kay moom tamit na kaf ree rek. comme kee dafa joué théâtre am mu joué théâtre am moo gën chaque euh, chaque instant bu defee dara xolam du ci bon te moom dara safu ko waaw man daal loolu laay bu defatee ay yëfam na def ay yëfam moom tamit waaw kay nuyu naa leen yéen nekk leen si jàmm. waaw asalaamaaleykum waa waaw neex na neex na neex na tey moom macha allah neex na trop xam naa ne Lalla moom wax dëgg yàlla moom jeeg la am na personnalité. bàyyi ko muy toog di wax di wax ne mu di wax ndax bëgg jaar ci yaay ji moo tax mu jaar ci doom ji nekk foofu lan la faalewu ko lan la tamit noonu la waroon def fi mu ne fi mu nekk nii war bu mu yégee ci kaw daa waroon na wàcc sañ sewaat ba jekk fekk ko foofu muy def ak robam boobu robam boobu bon boobu mu sol naan day lëmbal ak day def lu kenn xamul fi ne yi muy def ku ñàkk personnalité patt bi ko lan la may maa ci kontaan noonu lay def yéeg day am personalité moom nag moom ba foofu lu xew tv nuy naa leen ziar leen bu baax a baax a baax gëj naa dugg nag di commenter ci maîtresse d'un homme marié dama xawoon tawat moo tax mais maa ngi doon seetaan série bi léegi <laughs> non Marème du nitu dara Marème mën na déranger waate mais neex na neex na mi laal la laal la yow tamit toi aussi yow laal la ngir yàlla continuer ni nga commencé lalla yow yaa ngi jongoma ah yow yaa ngi nekk jamaa noir macha allah boo solee sa yëre olof ba tagalu rek ñëpp daanu ah bul bul bul bul sóoraale Marème Marème xale la te yow dir yànki nga nee naa la toujours yow premier dame nga première dame dame la muy doxee bu ñëwoon nga tàccu kafre foo mais yow Marème ñëw rek. ah yow tamit nag bul bul bul bul kii aawo nag yow tamit ah mais joor moom ah joor jëli war na ko dara jarul bëgg naa yii man man bëgg naa xale bu capable coupable ñëw régler li ngay régler doo ci boole dara ak wax romb leen donc tey moom série bi neex na trop sax. bi mu gisee ne bébé Amina duñ ko dox dafa woon dem police porte plainte jox mais wur woon dem foofu instant yooyu instant yooyu fii relation à domicile def su ma sañoon daal jënd ko def loolu. salaamaaleykum salaamaaleykum lu xew TV maa leen di nuyu di nuyu waa série maîtresse ah moom kontaan naa kontaan naa torop ci Mariam moom lii tax ma bëgg ñaareeli waay. ñaareel yi dañoo am dañoo am buzz non laala nag laala nag laala instant bi dañ kaa dóor un zéro laala lu muy daw lu muy daw daa waroon na continuer waxtu xolal ñuy fecc di taasoo ko woy wóor na yàlla mais xolal Mariam dóorati na ko xolal 4 0 ma ñëw ci Jalika Jalika moom kontaan tey ni mu def jël na doomam mais nag li ko gel bi wax dëgg la na ko yóbbu ci hôpital bi ñu xool xale bi ndaxte xale bi moom mooy loolu moom na ko yóbbu affaire yooyu affaire takkaay bi moom daaw mais kii dafa waroon a dem la wax ko cheikh wala mu wax mindaan mi kan moo duggoon ci kër gi pour affaire oor yi feeñ ndax fu mu ne xarit bi dina dem ci sëriñ ñu wax ne mareem la affaire yooyu te loolu wóorul affaire de sëriñ la affaire yooyu kontaan daal kontaan naa trop tey ci série bi joor moom yow moom xolal ca mbalit ma lañ lay sànni yow moom mooy loolu waaw kontaan naa trop ci série bi kontaan naa trop trop trop macha allah Marème yaa fi mën yaa mën aawa waaw man maa la wax lii man. salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum na def si jàmm série bi neex na neex na neex na neex na non ko kontaan naa si moom trop sax jëli maa kontaan si moom dafa mooy joor gis nga nit booy maslaa maslaa maslaa dafa am fu muy yem. dafa moy joor da ko moy waane nag biram bëgg naa mu feeñ takkaayu laale yi mu jël dama bëgg mu feeñ parce que wóolu jamono ji dafa naqari laal la mën nay ñaaw njorte si mareem mu ngi wax naan mareem du fi yéeg sax mais mën nay dem ba ñaaw si njort loolu day indi problème la loolu day indi problème mareem waru woon fekk laal la ah ah ah si si bi mu am yi muy wax nuuraa loolu mu def foofu rafetlu wu ma nit ki da ngay tey Lalla mu ngi programme nekk si biir këram indi ay xaritama ñi bu fa dugg amoo borom kii da ngay tey da ngay tey nit doo ëppal Marème dafa ëppal ba pare dafa bëgg a Lalla moo waroon a am fulla fay daam Lalla daam boo xamante ne dafa doon koo xamante ne xoolal na ma tele marem bu ko yeb bu mu ko fekk man doo ma fekk sama biir kër ba pare bëgg may ilif man tane manul ne ñëw nga da ngay am sa place ma am sama man aw ma yow benn affaire laal la fii rew fii rewul euh, kii de Cheikh Diagne da di marem na mu nekkee woon ak Cheikh Diagne moo ñaaw ñaaw koo xamante ne looloo tax laal la faalewu ko looloo tax mais bu doon beneen jigéen laal la dox la mais marem lii day yee xale jigéen yi billaay film bi da leen ku suy ngoro saf tuwaay di nga xam fa nga yem ak moom am na foo xam ne boo fa jàllee doo boo sëyee doo doo fa jar dërëm xas lay doon mareem a gis ñaari fan ñi tañ xas ka kii laal la mareem waru ko woon a déranger soo ma fekkee ma toog nga ñëw sax du ma la lijjanti mais am na yoo xam ne dafa rafetul ah ngeen baal ma nag su ma jógee foofu damay ñëw ci Jalika Jalika euh, normalement tey kontaan naa ci moom parce que Jalika li mu def jooroon moom rek la ko mën na def euh, te may wax ne rek Jalika jàmbaar nga euh, nga gën a góorgóorlu waaw wax dëgg neex yàlla kontaan naa yaag Marème moom dama leen a faatu yàlla tax moom wallahi faa naa leen lool lool lool lool lool ba pare euh, mère Diagne mère Diagne baaxul mère Diagne jarul tax julli di ñaan wala moom moom dama moom dafa war a araamu julli maire Diagne day jàkkaarloog yàlla ñaan ko ñala won ko ginnaaw lii moom xam naa ko maire Diagne moom bu jàkkaarloog yala bu ñaanee yàlla day wane ginnaaw ne ko bëgguma te mayewuma man maa moom sama may duma la ko may waaw maire Diagne baaxul maire Diagne bu baaxoon day jéem a boole njabootam bi mu doon benn waaye maire Diagne foo ko fekk muy séparé maire Diagne foo ko fekk waxam waxam séparé la mënu supporter la la mënu si kii mënu supporter Jalika mënu supporter Marème kan la mën a supporter mooy ñaar ñu bon ñi joor la la maire dafa bon boo mën a supporter lu bon maire Diagne dafa bon xam lu bon lamboo lu bon toog ci lu bon di dox ci lu bon lii moo tax nit ki da ngay jub waaye dafa am loo xamante ne mbon rek a ko mën gis nga nit nit ku bon du bëgg ku baax ku baax mooy bëgg ku bon pour defar ko waaye ku bon du bëgg ku baax mukk ci àdduna waa maire Diagne nag julli bone day ñaan wallaay jarootoon ñaan jaroo woon ñaan de jaañ parce que li nga def nii jaamu yàlla jéemu jaamuwoo yàlla da ngay naafeq naafeq nag day jàpp day julli day woor day nat musa asaka day joxe muurum koor waaye cerub naafeq bi mënul denc moom loolu nag mooy mère Diagne mère Diagne naafeq bi ciis bi soxor bi iñaan bi du denc cer gi waaw nag bàyyi loolu <laughs> tey nag waa kontaan barke Serigne Touba maa ngi jéglu de feex bi kontaan laa ci bare torop torop fili moom waxuma ay waxam fili dafa saytaane fili moom na sori fële waaye tey moom maa kontaan ci mareem mareem xam nga dafa ñëw jaar lala commencé ngistalu di gis ngistalu naan naan waaw adduna amul solo adduna mujj na am solo léegi adduna amul solo xam ma adduna moo amul solo wala nit moo amul solo yow la la xamoo sa bopp yow yaa amul solo maree man kontaan naa ci yow dëgg dëgg dëgg fi may wax nii dafa wax ndax mareem dafa pare mareem dafa pare ci lépp lu muy def mareem dafay programme ay programme am daaneel la ci suuf waaw kay mareem man yow naa la barke Serigne Touba bu tekki tànk de jañaxal rek man moom barke Serigne Touba maa la bëgg maa la bëgg kontaan ci yow yow ñaareel bu pare nga ñaareel day pare ah man de barke Serigne Touba ñaan naa yàlla am ñaareel bu mel ni yow waaw ñaareel day pare waaw ñaareel pare ñaan naa yàlla am ñaareel bu mel ni yow kat ah neex na waaw waaw kay. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk doomi aadama yi maa ngi leen di siyaare te di leen baal wax saay su ne rek te di jégalu. ah di leen wax ne maîtresse neexati na waaye nag may wax ne rek euh, tey moom fi may njëkke mooy euh, xaritu lala bi xaritu lala bi dafa saytaani kii baaxul baaxul ndax euh, kooku moom baaxul parce que dafa waroon a waxtaan ak lala comme mu gën a juboo ak mareem wala mu xool nu muy jëfe mareem teg ko ci palaasu rak mais moom day soñe rek kii du xarit baaxul ay saan muy def kooku waroon na ma mën a def waxtaan ne ko del moytu kii del moytu kii waaw mais nit dangay gis nga xarit dañ koy xam nit da ngay xaritoo ak moom jàng palaam xam mooy kan mais kii pax bi muy gasal lala la moom tegu ko fen ki saytaane la kii moom baaxul gis nga takku lala yi saa yi mareem la ko ji kii saytaane bu mag a mag la wax loo xamante ne wóoru la def loo xamante ne dara baaxu ci loolu saytaane mënu koo weesu gis nga nit ku ne moom war nga xool sa bopp rek xam ne bu la nekkoon di ngay naan damay bàyyi xel ci lii waaye am na loo xamante ne doomi moom moomul ko waaye nag euh, lu fi waay def boppam lu waay def sa kon moom yaakaar naa ne euh, sax dara gis nga la lu muy def nii yëpp ci ba léegi mënul supporter Marème loolu euh, naa fekk moom euh, ci la la la wàññeekoo. waaw loxo bi leen ci yàlla leen mbaa yéen ci jàmm film bi neex na trop macha allah ñu ngi koy siifur bu baax a baax joor moom tey moom jële ko defal na ko bagage waaw jigéen fi la. yi laa bëgg jàpp doomu jàmbur bi rek lenn ne mu teg ko ko aa ah, bëgg naa lii man na ko ba bëgg a dee teg ci mu wax ko lim koy def lépp ah bu ko def lu woon nii du mas jot si doomam jigéen fu la asalaamaaleykum na ngeen def namu naa leen yéen a ngi si jàmm alhamdulilah sama xol sedd na ci Jalika tey moom série bi dafa neex Jalika daal gën na maa neex gën naa koo naw gën naa ko bëgg nii la jigéen dangay pànk am fulla li mu wax nag jar na jàngat nit jële ci lu bari wax na dëgg maslaa mooy xañ nit ki yu baree baree bari maslaa moo ko indi problème yi mu dund yépp amul dara bànneex maslaa moo ko ko yóbbee waaye tey moom faanaa ko Marème nag mi ngi may bëgg a soof ndax nag ku la tooñ moom man bëgguma ko Marème moom dama masa far ak moom même Lalla Lalla tey mat na diiñ na waaye nag dafa rafetul ndax xam ngeen ne doom dafa sax ci xol nit ki bu nee tekk rek neel tekk di ko xool marem na ñëw rek indi jàmm te dal marem xanaa indeetul jàmm moom nee na jàmm moo ko tax jóg te dafa bëgg jëkkëram lan la ne tekk lu muy di wax ak doomam ah? moom bu doom ji doon toj kër gi yoona bu mu ci nekk nit da ngay bëgg jàmm xaritam bi nee na ko toogal di leen seetaan na toog di leen seetaan na toog di leen seetaan beneen bi mooy Euh, laal la wax dëgg yàlla seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel te kum doon yow ni laal nekk xarit di def rek ngay def ndax nag nga dëkk ci kër at ay at sa dara mësul réer ganne fa salaamaaleykum matul weer nga commencé réer le ñëpp ca mareem la xel di dem biram na tas na kër gi te biram jublu ci soxlawul alal ji yaay ji lay jàppale ci xeex bi tas kër gi tasar la bëgg ndax gis ngeen nit la mu wax yaay ja man nag su ma doon marem li ma koy xe su ma doon lalla li ma koy xelal mu ne tekk toog bu mu wax Cheikh Diagne dara ndax bu ko ko waxee seex Diagne du ko gëm dana ni ko danga maa jiñ da da da nga koo sosal te xam naa Cheikh Diagne bu ko yëgee bay dof dof lu dem di ko laaj mareem guerre bu rëy indi lañuy indi ci kër ga bu ma doon lalla ne tekk bu ma ko lijjanti bu ma toog li mu wax daal na ko jëfe bu mu ko wax bu mu ko doxee te la tey dama kontaan ci moom ndax Marème da ko bëggoon a jaay ci kanamu gan ñi waa waaye ndeysaan mu jox ko sourire am bi rek xam ne moom mooy bégloo la daal ca kaw ca kanam Marème nag moom tey moom dangaa daanu ba ger nuyu naa leen ziar ñépp kontaan naa ci yeen asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa di leen sargal leen ziar maram tojati na fi waaye mareem waaye mareem waaye mareem nii rekk la ku la seentu ci gaali xaj bul ca nangoo lekk wallaahi la lu muy def bàyyi ko li muy def nga fiixal sa xol bi bégee boo ñëwee fekk muy bég nga bégale ko boo ñëwee fekk mu sëngéem nga sëngéemle ko waaw loolu rekk la te nuraa nag def ko ni sa doom bi nga jur rek ni nga bëggee seex wàccee ko ci nuraa kenn du la sikk ku la fi xel moo cay des bàyyi leen ak seeni pexe nga dem ak sa mbégte jërëjëf waay asalaamaaleykum asalaamaaleykum wàllu xew tv maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ziar maram tojati na fi waay mareem waay mareem waay mareem nii rekk la ku la seentu ci gaali xaj bul ca nangoo lekk wallaahi laala lu muy def bàyyi ko li muy def nga féexal sa xol bi bégee boo ñëwee fekk muy bég nga bégale ko boo ñëwee fekk mu sëngeem nga sëngeem le ko waaw loolu rekk la te Noura nag def ko ni sa doom bi nga jur rek ni nga bëggee seex wàccee ko ci Noura kenn du la sikk ku la fi moo cay des bàyyi leen ak seeni pexe nga dem ak sa mbégte jërëjëf waay asalaamaaleykum na ngeen def lu ngeen nekk yéen si jàmm waaye yéen waaruwu leen ci Marème rek di ñaareelu laal la rek <laughs> Marème moom <laughs> Marème daa mel kuy kokkali laal laala dafa dem ba amatul fit ne laala il faut mu am fit affronté ko bu dul loolu Marème dina nangu këram nangu léppam waaw laala dafa war a def lu ko Marème def ak lu Marème def bu ko xool bu ko faale na gérer li muy def liggéey liggéeyam Marème daa jógte pour ñëw yàqal ko waaw man loolu laa gis laala daal na taxaw fu taxaw dëgër na dëgërlu bu baax a baax bu dul loolu rek marem dina ko yàqal dina yàq foyam gis nga ko mu toog di jubbanti doomam ak di gérer kër boo sàgganoon nag mooy gérer kër gi la na jóg ci boppam marem mi kat daa ñëw pour yàq asalaamaaleykum waa maîtresse maa ngi nuyu ci loolu nekk yéen a ngi ah film bi tey jii neex na de neex na torop torop torop film wax dëgg yàlla dañ koy seetaan chaque jour da ñu raw dañ koy seetaan mais neex na torop torop am na sens te tamit dañuy xool fii xasan ñu koy wokku li ñuy joué dafa am moo tax mu neex mais Jalika moom tay naw naa ko moom def na fulaam ak faydaam nangu doomam yóbbu ko dóor joor ba muy bëgga dee day mën a war rek loolu rek a baax ci moom léegi nag li ci des mooy na ko Macky jël yóbbu ko ci wetu yaayam waaw foofu toj yaay Macky moom tamit li mu moof du aasam yaay Macky tamit neex na ma ci film bi ah yaay Macky ki ci jonga ma ëpp na <laughs> yëf yi dafa gën a neex macha allah yàlla na yàlla gën a def rek. salaamaaleykum waa maîtresse. nag leen siyaare kullu bàyyiwuñ kenn. leen bëgg di wax ne série bi kontaan nañ ci bu baax waaye ci épisode vingt quarante suma jumut waaw Marème daal j'aime bien bëgg naa ko daal Marème daal li muy jouer ak Lalla bëgg naa loolu waaw mais Lalla moo war a nangu Lalla Lalla Biram Njaay fekk yaa ngi may dégg <laughs> wala soo déggee sama commenté Lalla Biram Njaay nangul xam ne lii bokk wërsëg la yàllaa ko dogal nangul nga yaatal mareem ndax mareem dafa pare fépp boo ko yaatalee day dem boo ko yaatul day dem waaw yaa ko mag waaye moo ëpp sagar <laughs> da ngay dégg olof yi naan ku la mag ëpp lay sagar waaye laal la biram njaay mareem yaa ko mag waaye moo ëpp sagar man bëgg naa lool daal j'aime bien bëgg naa loolu mareem li ngay def bëgg naa ko trop man daal su ma amee jabar dinaa takk ñaareel waaw ñaare bu mel ne mareem ok seen liggéey rafet na leen wax ne well done thank you well done thank you salaamaaleykum leeral tv maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di rafetlu seen liggéey macha allah am na maanaa am na solo seen taxawaay rafet na di wax nag ah maîtresse daal tey tamit kontaanati naa ci Jalika jëlikaa daal maa la bëgg Jalika yaay xale bu pare macha allah nii la na gis nga jigéen day am fulla am fayda lu mu bëgg a faj faj ko noonu la nag man moom kontaan naa ci yow trop trop li nga def biram tey def ko yaayam def ko joor joor moom da nga ko waroon rey sax benn yoon man foogoon naa ne day dee sax danga ko laal tuuti rek mais baax na si moom nga ñamal ko lool ba beneen biram tamit tey war nga ko sa bopp bu baax a baax man daal bëgg naa jigéen bu am fulla ma del si nag ci laal ci Marème euh, Marème nag yow tamit nit kenn du ko toog bu mu sës des fois nag nga baal laal la nag nit kenn du ko tooñ man nag dama la bëgg suma biir xol def parce que li ngay def moom neex na macha allah mais nag tamit bàyyi laal nag nit kenn du ko toog bu mu sës yaayu biram moom mère boobu moom goro boobu yow jalika mère bee des mère bi jàppal ma ko. mais baal ko sax parce que comme moo jur euh, biram moom ba boo baal ko mais mère bi ku seytaane la moom tamit mère bi moom mooy loolu moom waaw mère bi moom hmm? rakki nag maa ngi lay wax pour nga dem nag jubóog sa yaay nag waaw wax la dëgg ngeen juboo ngeen nekkaat si jàmm mais daal wax dëgg yàlla moom film bi moom macha allah neex na torop torop torop yal na leen yàlla jëmale si kanam ak kanam ak kanam kanam maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV yéen a ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm alhamdulilah macha allah macha allah tey série am na maana waaw kontaan naa lool nag ci Marème ndaxte Marème ni mu def nii rek la war a def ndaxte moom amoon yépp bu bàyyi na ko moom daa jàpp ni daa wax nit ñi ndaxte laal sama xarit la jàppee ma ko bujj xam nga. moom daal def na li nga xam ne moom geste bu rafet la wax dëgg yàlla waaw lal lal moom moom moo am problème instant gi xaw ma lu tax muy dugg si kaw di jooy di yëg si kaw di jooy waaw moom a xaritam bi di wax mais Marème deful dara lu def rek la def en plus mu wax ji doom ji mooy doomu laala bi lu mu ko wax lu ko war a wax la ko ko wax xale dafa yem place xale mais far farlu baaxul ci xale loolu sax lal moo lal sax moom moo waru woon nangu loolu doom bi na leen far faru diggante Lalla ak Marème moom mu teel ci wax lu gaaw comme ça doom ji bàyyi mais loolu baaxut waaw Jalika moom lu mu def tamit mention spéciale dem na ci joor dóor ko bu joor wax dëgg ji xam nga mais man foofu noonu euh, jëkkër ji moom laa moom laa jox fob bi biram moom joor ba mu waxee dóor naa xale bi dama ko doon yar biram da ko waroon moom itam yaraale génne ko kër gi man la mu dóor ko waaw bu ma xam lu tax mu def lu mu def waaw man loolu laa amoon li may wax waaw série bi moom macha allah kontaan nañ lool ñun ñu ngi moom ah en bu ñëw dañu koy seetaan macha allah no stress kontaan ñu lool dañu seetaan di ree di xàppi xam nga lépp yàlla ak yéen kon nag. waa salaam salaam gars yi ça va su ma leen nekk yéen si jàmm ah waa tey théâtre moom tey moom dal na tey moom moom macha allah waaw ama rem moom moom di kontaan ci moom rek ndaxte moom moom nu muy doxalee moom noonu la wanewul benn stress boo xamante ne nii lalla dina ko kii leen doxalee lalla moom jàmm daal lu bëgg mais lalla moom mënul comprendre moom pour moom ma rem da koy kokkali wala yu kenn xamul noonu mooy loolu. mais xale bi tamit dafa war a bàyyi bu ay mag di wax rek mu taxaw di yurundu moo tax lu muy dégg rek dina dégg lu warul dégg waa kanta jalika nag nu mu doxalee man doon man la du warul laay def waa jël na doomam mais kanta dóor bu mu dóor joor foofu la defee erreur mënoon a dem rek jël doomam sans problème yi mais nii nii ni muy loolu xam moom dafa seytaane asalaamaaleykum sama waa groupe nuy naa leen yéen ñëpp man daal li ma gis daal laal la daal na nangu rek woote jàmm moom ak marem ndax xam naa ne chaque jour ñu préparé marem ku marem ñëw rek def leen ko ndax marem moom daa ñëw rek sëy bi fas yéene ko boole ñàkk jom lépp luñ ko def rek bu ñëwee rek moom daal ñoom ñooy mu mer kon bu yóbboo daal man daal sama xalaat mooy na laal la wàcc rek ànd ak marem moo gën àdduna amul solo. asalaamaaleykum wàllu wàllu kër du xew TV ah na laa doon nag. parce que Marème ak Lalla Marème dafa ñëw fekk Lalla ci këram di aawa këram di xaritu jëkkëram comprend ngeen mu ñëw bëgg a dëjëti Lalla jël place Lalla te loolu c'est pas normal Lalla dafa defaroon ménage am ba yooyu jëkkëram léegi nag Marème fexe ba Lalla dina àjjana jooju bëgg a jël place Lalla te lool du yoon cuuj dafa war a xam lekkam comprendre nga ménage yu Lalla waru cee dugg. bay imposé doom loo xam ne waru ko wax waaw seen jëkkër ji boppam nag moom moom moo tas kër gi ndax nit boo boo mënta yor ñaari jabar danga yem ci benn jabar waaye takk ñaari jabar te mënuloo leen mënuloo leen a yemale tas sa kër loolu dëgg du yoon mareem xamal sa bopp ak fa nga yem. maaleykum mbokku maîtresse d'un homme marié maa ngi leen di nuyu yéen dama kontaan franchement parler kontaan na sama xol dafa sedd. billaay Marème maa la fan man yow laay roy ah ñaari du yëpp buñ meloon ñëw Sénégal dem kanam nii neex na neex na trop laala nag maa ngi koy wax mu muñ rek na muñ rek waaw na muñ rek te gën eh, sama gars yi bëgg naa leen ci li ngeen nekk maa ngi ko yére nga am bu baax a baax waaw film maîtresse de mariée bu neex waaw bu neex la bu neex la gars ñi koy suivre ñi koy suivre ñi koy suivre trop trop ñi koy suivre trop mais biram moom biram kañ lay soppeeku biram kañ lay soppeeku hmm? biram rek xëy waxam jure ji yëpp tapet la quoi biram dafa ragal biram dafa bi jërika mais war ko ragal nag da war a dëggal boppam quoi mais biram dafa tapet day actionné nii di xaaju mais nag ragal waa ah, sama waa groupe waa maîtresse en homme man ñu ngi leen di ziar di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay waa ah, série bi neex na mu série 44 macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax waaye de série moom ñu ci kii rek mooy gàtt bi muy gàtt dafay gàtt trop. amaana am naa chance moom wax dëgg yàlla ndax ñu si gis bopp waaye daal dafa gàtt temps bi dafa gàtt trop lu ñu may daal dafa ndaw sañoon ngeen yokkal ñu ko ñaareel bi si tegu mooy Mariam Diallo gañeeti na Mariam Diallo gañeeti na ñun de lu jum koo affronté taxul nga mun koo affronté Mariam Diallo daal wax dëgg yàlla jekkookum na laal la xaw ma kat la laal la di fay nag waaye jekkookum na ko waaye biram mere naa ko trop sama mere ko mo nit day yom boppam am dignitéem dem sa kër jabaru mag di sàcc ay takkaayam si tam amul service loolu moo sa ngaar mu ne mun na ci am ndax laal la xëy na boobu rafetee njort bañ tudd mari mu dem bay xelam doj ko mu bañ koo tudd xaritam mën na ko ko wax te mën na indi conséquence bu yaakaaru woon moo tax jëlantu daal baaxul day yàq kër day yàq famille loolu moom dañ ko si wax dafa lu nag sëriñ bi bu baax a baax leen ñaanoo ngeen yokk ba yëg ko jëf ziar leen dolli ziar di leen ñaanal gudd fan bu yaram xéewal bu bari jàmm ak salaam matan maîtresse mm, mm, maîtresse d'un mari metti na metti na nekk na film bu dugg ci biir xool ci biir xol li ñu jee dafa am lii mooy film lii mooy réalité parce que li ñu jee moo nekk ci biir kër yi dafa am am na trop waaw Marème dafa war a bàyyi tooñ instant bi comme ñëw na ci kër gi na fexe doxal jàmm rek comme laa la léegi mi ngi doxal jàmm na fexe doxal jàmm moom tamit ñu ànd nekk ci jàmm parce que daal jàmm moo gën ay bu ñu amee jàmm seen borom kër am jàmm ñu amal ko jàmm ñoom ñëpp ñu am jàmm xale bi tamit laa la éduqué ko war na ko ni kii sa tataa la ñu toog ñoom ñëpp ñu nekk bonne famille loolu moo gën mais li ñuy def nii amul benn sens amul benn sens moo ne ci kër yi li ñuy def nii moo ne ci kër yi amul benn sens diram nag moom. li ñuy naan baadoola boo ko sangee ba mu set du tee mu doon baadoola baadoola pire ñu noonu baadoola pire noon lay mel baadoola boo ko sangee ba mu set bomb ko ba mu set sax du doon du tee mu doon baadoola mu daal day day dugg ci biir xol di laal nit ñi léeg-léeg da ngay gis koo xam ne daf koy dund mais affaire bi daf koy métti carrément parce que xoolal laal la ni mu mel noonu ak moom xoolal laal la ñoom dañoo jaame doon doon jaam daal. danga si si kër gi doon aawa def fi lu ne nga am ñaari ñu xooli la teg la ne la moom loolu yëpp lay xalaat fi mu ne nii ak genre geng affaire yooyu moom lay xalaat te Cheikh Diagne moo benn nopp. asalaamaaleykum série maîtresse di nuyu ku nekk turam ak santam di sant di leen nag Jalika laay waxal nga def noonu la gis nga ku laa xam nga nu mu tudd Marème nee na boo bëggee jotu yaay da ngay wekk doom. man nag li maire bi wax maa ngi koy soog a gëm ci joor mi ne bu gisee Amina day mel ni kee lay gis nu mu tudd ci sax ah, jëlik lay gis gis xale bi ak gis butitam la yemale mais gis nga ni nga def noonu la jamono ji bu doon laal sa doom nga jóg kon kenn du laal doom kenn ni nga def noonu la noq ko ba mu baax ba pare jël sa doom dem yaa ngi soog def ful la nag kanta maram nag mu yow moom maram yow nag bëggal naa la torop waaye maram bàyyi ñaawalaate gi lala nag laa bëgg waxal amul fulle amal fal gis nga li maram def nii dàq ko koo def du ko mun du ko mun a muñ du ko mun a supporter bu ñëwee pour ñaawal ngeen ànd ñaawalandoo di nga am jàmm jooyi fajul dara fajul jara la sa xarit wax mooy dëgg yaay buur déggoo sa xarit yi ñu ne yaay yaay aawa yaay papay jëkkër yaay yaay jëkkër xaw ma ah jàppal loolu yotam nga bay jooy la maram lu muy def nii bu ñëwee ak ñaawalaate nga ko daq ko def waaw merci beaucoup. waaw yéen la maîtresse ñu ngi naan leen siyaar naa leen bëgg naa leen siyaar di wax ni def neex na am na solo neex na torop am na solo. Jalika nag moom kontaan naa ci moom kontaanati naa ci moom sax laay wax parce que lim def joor kontaan naa ci torop joor dafa bon bon na soxor na man mu ko def dóor ko bu fi bëgga dee jël doomam ci moom man joor li liñ naan dafa am doom man gawma ko gawma ne joor am na doom bu tëdd ca taabal ci ñam la ca ne yaakaar naa ne di nga xool xale di nga ko xoolee leneen lu dul affaire soxor yi nga ko doon def waaw yaakaar nit ki li muy yéene doomu moom la yéene doomu jàmbur te loolu sax moo war a mën a nekk mais ñi nga gis ñi nga gis ñii sax ci kër yi dañuy gën a lante dañuy gën a lante waaw seen doom doom yi jàmbur yi dañuy wax seen doom yi tëddal ñuy yónni ki nga xam ne ndayam nekku fi mooy dem yónneen mooy raxas ndab yi mooy bale kër gi man gis naa ko loolu gis naa ki nga xam ne yaayam dafa di forcé ci kër gi bàyyi ko fi papa ji ni ko doo dem jàngam sax dem na ba yàqu ci loolu mooy defar kër gi mooy nettoyé jànk sax mu ne jànk sax dootu duggati ci kër gi man liggéey bi ñoo moo doom ji mais bu papa ji demee danaan doom ji demal sangu ji ba set nga dem tëddi kee mooy liggéey liggéey bi yépp waaw ci kër gi kon lii ngeen di def am na solo am na sance nit ñaa ngi ciy gis seen bopp nit ñi li nga xamante ne mi ngi ci kër yu bari mënuñu koo wax yéen a ngi ñu koy waxal mi ngi génn ñu koy partagé ndax di nga ci mën a jaarale wax ci li nga bëgg wax am na solo trop sant nañ leen gërëm nañ leen kontaan nañ trop ci yéen waaw may wax Lalla nag moom mere naa ko mere naa ko torop ndax Lalla ba maneem dugg si rek ah dugg see commencé di fecca kataltale ko nuyoo muy ree am jàmm sourire ñëpp naan ko sa wujj bi ni nga mel ak moom dafa jafe noonu la waroon continuer ba gani dem suy defanteeg marem sax mu defanteeg marem waaye sànni fa gan sànni fa lépp dem yëg ci kaw di jooyee ka dof dof Lalla moom neexut ba neexut waaye yàq na deru aawo yi yàq na seen derkat ah man de wute naak sama aaw moom wute naak moom kat sama aaw moom wax dëgg yàllaam wala wut dara ki wax comme patt boobu muy wax moom lay maye waaye foo ko fekk nag mi ngi jàmmam ak salaamam yaatal ñëpp uuf ñëpp loolu mooy àdduna lu ñëw nga kaf ko ree ko waaw su wax ko jotee nag am nga droit taxaw wax waaye moom nee na carrément Mariam da koy kookali te Marème xam na ni Marème da koy kókkali man dooma rey kókkali boobu dama ci ànd ak yow ba daanu jugee ci dara doo ko def ba mu ma mais laal la moom feesut côtéem daal booram moom des na des na lu bëree bëree bëri xaw ma tamit ba pare mën na am fii daa ngi xëy na moo tax mënul digérer Marème waaye ni Marème di cëpp-cëppee ci kawam bu ko yemale géej gée ni tekk kon dara du metti salaamaaleykum salaamaaleykum wàllu xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm seen liggéey rafet na yal leen yàlla defal jàmm mooy leen gudd fa ak wér gu yaram xiiwal bu saawaan baawaan waaw maa ngi ci wax ci série maîtresse d'un homme marié bi jàll démb may wax jigéen ñi nañ jël seen palaasu laa la nga jéem a teg fa sa bopp xool parce que la Cheikh Diagne bu takkoon beneen jigéen indi ko ci kër gi dina ko mën a accepter mais Marème lim ko def moo ko def goomu xol mënul accepter Marème Marème moo doon ñëw këram moo ko Cheikh Diagne ñuy tëdd ci lalu la ci néegam loolu la ko laala loolu la ko moo tax mënu koo supporter Jalika moom merci beaucoup sa pour Jalika def na wareefu yaay ci doomam bari récupérer doomam def na lépp ñu ngi koy am nga xam ne rolam mu koy def mais kii ni mu bëgg a nekkal nii ah doy na waar de xale bu jigéen bi ak yaayu ku góor gi mbaa dinañ ko ko may merci beaucoup nekk leen ci jàmm waa asalaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié waa maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen dox seen wàccuwaay di leen wax ne macha allah macha allah film bi neexatina neexatina wax nag dëgg yàlla kii Marème Marème fattana Marème fattana de mais gis nga aaw bi nu mu diiñee dafa diiñ gis nga li mu wax nee na ku bëgg a jot yaay ja dangay laal doom ja gis nga laal na doom ji mais yaay ji toppatoowu ko sax toppatoowu ko man noonu laa bëgg dama bëgg jigéen bu diiñ macha allah diiñum boobu na ko continuer bum mu ko yàq nit nag moom fiir day am mais moom boo fiiree rek fiir nga mais moom diñ na nag mais fiir na fiir na parce que kii dafa ñëw pour yàqal ko gis na li muy wax dinaa ko ruubee yàqal ko dugg ci ay 18 am loolu nag moo ko tax a jóg loolu moo ko tax a jóg te bu ko ko may bu ko ko may benn yoon li mu commencé daal na continuer noonu mais Jalika moom macha allah kontaan naa ci moom ndax nit moom nii rek la mënoon def jël doom parce que bu def kii bëgg na doom ji juge fi te bu fa xawoon a yàgg tuuti rek dina ko yàq dina ko yàq kon nii daal mu def nii baax na jël doomam jël doomam mais kontaan nañ ci yéen trop kontaan nañ ci yéen trop maa ngi koy dolli tamit ci li ko maîtresse bi wax pour mu jéem ko yóbbu ñu xool ko parce que yenn calme yi tamit ci xale ëpp noonu ëpp noonu baaxul baaxul il faut nga xool ko ba xam am na lu nekk ci moom wala déet parce que li wax rek teel a jóg yàqul dara yàqul dara man daal kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci yéen jërëjëf macha allah seen film bi neex na yàlla na continuer yàlla na continuer. asalaamaaleykum waa Maitresse TV maa ngi nuyoo di leen siyaare di nuyu ñëpp di nuyu groupe bi yëpp nag di bugg a wax ci série bi jàll am na solo trop neex na trop trop trop trop moo Jalika moom. Jalika waay la Jalika moom suma waay la Jalika nu mu defee nii moom macha allah am na solo trop nit dangay am fulla am fayda am responsable billaahi joor joor du nit nit ñi ñu doon xelexaa ñu ngi doon lifit sax dinaan moom dóorut ko du moom ak moom la nekk te joor moo ko dóor joor bon na waaye lu ko Jalika def rek baax na Jalika daf ko moy daf ko obalaa moy sax biram moom du niti dara biram du dara dara dara dara biram moom du dara jarul sax yar sikir biram du dara moom cettt dafa soxor torop dafa bon waaye jalika moom dafa am fulla am fayda dafa ko naw waa meeram moom ah, <laughs> meeram dina dajji nit meeram daal dara safu ko daraa ko safut waaye laala nu mu def rek noonu la nu def moom baax na torop noonu rek la mun a def waaw kenn du ko xamal dara gis nga gaayam yi ñëw foofu noonu ñu ngi fonne mu ngi jiboo ak wu jam mel ak moom lu ku neex génnewul problème yooyu yëpp waaw lu mu def moom baax na torop lu mu def noonu naa si torop torop torop mere moom dara safu ko moom laala na muñu rek affaire bi yëpp dina dina dina dina lifin dina sotti na muñu rek mu xam ne wujju du dara wujju daal dafa mel ni ngeen bokkunde ndey baay rek noonu la rek na muñu rek lépp dina jeex waaw man daal loolu laa am si lu may wax nag kontaan naa si Jalika torop torop torop lu baree bari bari kontaan naa si de wax joor moom dafa soxor dafa bon billaay joor kay moom kenn xamul naka la. salaamaaleykum salaamaaleykum waa Lu naa bu baax a baax waaw di am si ak kontaante bu baax a baax a baax si maîtresse maîtresse moom macha allah fan yi moom xol yaa ngi sedd. waaw xol yaa ngi sedd lool sax te it ñu ngi joxe exemple saa su nekk rek ñu ciy jàngate lu bare bare bari ndax euh, bari na ñaari wujj yoo xamante ni dañu bokk nekk ci kër te balaa ñoo bala ci kenn mën a euh, fasal sa mer rek dangaa gis nit wala gan ci ñëw ci kër ni salaamaaleykum bu boobaa ngay gën a mën a feeñal sa mer waaw bari na ci waaye nag côté boobu moom dama ci naw mareem trop trop trop ndax euh, gu mane ak gu jëm ay nit ni salaamaaleykum xoolal mu kafre masla kenn du ko xamal dara it te kenn du ko yóbbul mu rafetal lalla moom itam rafetal bu pare nag kenn ku nekk la lay métti sa biir xol rafetal boobu da am solo torop torop torop waaw bi ci des mooy jalika jalika moom jalika moom neex la jalika ku ma neex la comportement ma neex torop torop torop torop sax te moom li muy def daf ko mën te dafa mën a jouer waaw ñëpp daal waaw ñëpp daal exemple lañ daal mhm. ñu ngi ciy jàngate lu bari bari bari bari ñu di sant di leen gërëm waaw di ñaan suñ borom yàgga seen taxawaay ndax nag yéen a ngi di ci doomu aada ñi lu bëree bëree bëree ñu ngi siy bàyyi xel kon fa ngeen bëggee egg fa suñu borom eggal te it ngeen gën a góorgóorlu def seen liggéey ndax kat yoon moom boo ci nekkee sax da nga dégg da gis lu nekk mais da ngay muñ rek te dëgmal sa yoon te bañ a geestu waaw olof njaay nee nag ci dox di geestu doo àgg fa nga jëm <laughs> lii rek la góorgóorlu leen bu baax a baax te ngeen gën a rafetal seen série maîtresse di ci joxe par exemple ñu ciy jariñu waaw di ci bëgg waaw loolu rek ah, tiyaaba ju bari la nekke nekk leen ci jàmm baax a baax a baax yal na leen suñu borom defal jàmm ak salaam salaamaaleykum salaamaaleykum ah ziar naa leen waa Lu Xew TV ah seen épisode bi jàll moom macha allah macha allah neex na torop yëpp bu fi jaar neex na mais bii moom da cee rawati Marème faj na ma billaahi Marème macha allah. Marème daal man li ma lay wax mooy yow fi nga teg sa tànk fii la jigéen bu ma neex nga jigéen bu am fulla nga macha allah yow daal seere ko foofu rekk seere sa sëy rek bul boole dara ak coow laala nag na muñ te jàpp ci yàlla te xam ne Marème mi buséwul meetar bi yeboon nag mu nangu li am saanaan a nangu day yombali duma laala tee ngaa nangu nangul te jàpp ci yàlla waaye biram yow tamit biram biram yenn góor moomu ko bàyyil wax ji ak jaxase bi ah biram yenn góor moomu ko de salaamaaleykum salaamaaleykum sama waa groupe maa ngi nuyu kenn ku nekk turam santam taaw ba cat ba cat bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di jégalu nag ci yeexu dugg bi dafa am lu ma jàppoon rek waaye série bi moom rawuma waaw ma ne ko série bi moom rawuma Ah, tey ci may ñëw ci muy série maîtresse bi moom rawuma ma seetaan naa ko par YouTube may ñëw ci ki nga xam ne nii mooy Jalika Jalika daal jigéen fulla jigéen fulla ndax mbéjum kanam boroom moo koy fajal boppam joor baadoo la bon fàttaliwu ko démb moo ko jàpp moo tax mu jàpp Amina di ko toroxal waaye far yàlla toroxal na ko ndax Amina am na yaay jumat yaay nit da ngay am fulla sa bopp diñ sa bopp Jalika moom ñun moom vraiment dañoo kontaan ci moom ñu koy seetaan ñëpp a tëb di yuuxu waaw ndax Jalik joor mérito dara lu ëpp loolu wante ndox bi nga xamee ne mën na koo saafara te boolewul daraa ki wax jot na doom te wax mettiwul waaw nit ku baax nag noonu lay def kon loolu am na misaal moom ñu jox ñu war cee jàngat lu baree baree bari mu loolu paasee mu ñëw ci ki nga xam ne mooy biram biram nag moom dafa tàkk ndax. Marème bi muy jéem a xeex Marème saykat la na xam loolu ndax gis nga keroog ju rôle bi mu joué waaw ñëw na fekk Lalla di yéen fi fim yëgut tilut mu animé ko nangu ko Lalla xol bi di bon Lalla moom boo moytuwul arrêt cardiaque moo koy dal aawalaa nag waaye moom aaw bu ñàkk fayda la na ding ci boppam waay ding ci boppam xam ne wujje moom du téerey dënn du téerey dënn na ko na ko wàccee ay faar rek affaire bi yomb ci moom mooy dëgg waaye bu ko jëlee def ko téerey dënn day métti lool waaw nan ko day metti loolu ndax Marème mi kat caaxaan de jëtiwu ko de lu leer laa koy wax ay boo mu def ndànk ciy mbiram Mère jaañ moom waxu may waxam moom moom bu goro yëpp meloon ne moom bàyyi boo rek jéeg ji bañ a toogati di sëy ndax moom boo amee say goro danga leen a war a yemale waaye di wut koy xeex koy bàyyi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaam. asalaamaaleykum waa kër gi si wax di nuyu ñëpp di wax ne démb moom kontaan naa ci Marème man aawalaa ah, de mais Marème laa ànd dama kontaan ci moom Lalla dafa bëri naqar rek te Marème defu ko dara moom ñëw buggut kenn xamal ko dara kenn diggante mu ak euh, la am na benn problème ñëw di ko wéyal fecc yu mu ko feccal nag moom a gën a neex man man daal maa ngi ci ñaareel yi ah, Lalla moom ma kii moom macha allah moom Marème daal zéro foot xale bu pare la te joŋe gis nga nit mën nga nekk sa aawo bopp sa aaw bopp nit mënul ko nekk man de aaw laa waaye benn ñaawe bu jël sama palaas waaw lii da laa wax man lii daal laa wax ma dem moom kontaan naa ci moom bu baax dama ko bëgg nag sama xol macha allah nit ku baax la waaw naka nii rek la mën a def te xam ne nag kenn bëggu ko ci famille bi nii rek la mën a def te dina récupéré ci këram saag laal la moom moo nar a ñàkk te aawakat warta ñàkk njëkk ci kër ba dara du dara warta mën a ñàkk dama koy conseil daal na jàpp ci këram ji xam ne bu jëkk dara bokk wërsëg la man maa ngi nii xale bu ndaw la 96 laa judd ak léegi bi ma sëyeeg léegi ñaari doom laa am te maa ngi nii utal leen ma wujj waaw def ma ko muy dara maa ngi gérer sama sëy namu ma daray wujj asalaamualeykum ah, lu xew tv ak mbooloo bi nga xam ni ñoo koy topp di ci wax seen xalaat ak seen gis-gis ci lii ñuy seetaan te waa Marodi di ñu ko jox dama ci bëgg lool sama participation nag tey pour la première fois dama ko jëmmale rek ci équipe Lu Xew TV wan leen rek ni initiative bu rafet la initiative bu baax la ndax xëy na sénégalais yi mën nañ leen wax sa xalaat ci rajo yi waaye nga jël par whatsapp créer loo xam ne mel na ni te dina mën a dem ba dugg youtube si réseaux sociaux yi lu rafet la lu dëppook jamono bi la waaw kon nag dama leen di wax rek bon courage et bonne continuation ah, te dinañu permettre képp koo xam ni wét na te bëggoon waxtaanee limu mu gëm wala lu gis wala lu mu jàngat ci biir film wala lu ko métti wala lu neex ci biir film yi nga xam ni série yi ñu ngi ñu koy yónnee parce que dootul théâtre mais c'est des films véritablement ndax acteur bu si nekk am na profil am na personnage bu mu incarné te acteurs yi euh, ñu ngi respecté loolu ba di créer ay yëg-yëg ci nit ñi moo tax daal maa ngi sant yàlla bu baax de nga xam ni bokk naa si pour mun a yónnee sama xalaat nekk leen si jàmm yal na yàlla yokku leen yëkkati leen ba fu ngeen bëgg a ngeen yegg fa. waaw ah, man nag maa ngi tudd Moussa Ba nekk fii Dakar alhamdulilah. Ah, salaamaaleykum na ngeen def waa kër gi ça va a ngi si jàmm bu baax ah, man de boobu tey maa ngi bëggoon dugg rek pour wax si waa maîtresse rek ah série bi moom li nga xam ne trop trop trop trop kontaan naa si trop sama xol seet na waaw. dëgg yàlla ñoom daal dañuy dundal nit ñi daal wax dëgg yàlla moom seen série bi macha allah mais joor nag bàyyi Amina mi ngay dóor joor bàyyi Amina waa bàyyi Amina mi ngay dóor xale la xamu daara yow xale bi sax danga ko woon a jël sax téeti sang di toppatoo ah nga def ko kon sa doom du dëgg toppatoo ko daal xale la xamul dara xale moomit yàlla la du dëgg waaw man daal laal la tamit euh, dafa war a supporter tamit wujj bi waaw wujj du dara wujj ñaar ñi bokk wërsëg la yaa ngi dégg euh, euh, ñaar ñi bokk wërsëg la daal te man lu ma gën a neex ci Marème mareem non stress lay dund waaw Marème moom yoonam man loolu ma gën a neex ci moom ah nag loolu war na ko mën a rusloo nag. mu am lu mu seet sax mu mën a juboo am moom du dëgg waa lool nag loolu rek laa amoon lu ma ci dem wax joor na nga bàyyi Amina waa di ko toppatoo nga xam ne sa jëkkëru ko jur daal loolu la waaw maa ngi leen nuyu yéen di leen sant di leen gërëm. Euh, salaamaaleykum wàllu xew TV euh, namm naa leen soo leen man damay juste pour gën naa participer lool damay juste dama bëgg juste participer ci épisode bi mujjee am franchement maîtresse d'un homme marié série bu neex la macha allah impact quoi franchement parce que ça montre beaucoup de choses te mën nañ ci jàng tamit lu bëri bëri bëri bëri franchement nañ ci jàng man leen rek laa bëgg ñu yokk ci. wala ñi changer ko ci au moins parce que là dañuy wane lii amaana dañuy wane lu euh, positif lu négatif lépp loo xam ne pour sénégalais yi jàng see mais sénégalais yi bu leen di jàngal au moins da ngeen wax da loo xam ne mun nañ ci roy au moins beneen facette wujju franchement mais ça c'est impossible otak jigéen war a nekk di di sacrifier boppam wala viwam ndax góor bu dem takki jabar indi ko si même kër franchement loolu moo rafetlu ma ko dara dara dara peut-être bu ñu changé woon bon ñu wane Sénégalais yi beneen mode de vie pour pour ñuy wujjee xam nga peut-être je sais pas daal ñu changé ko tuuti c'est c'est franchement très difficile am na yenn violence yoo xam ne man boo ma gisee daf may métti franchement. Euh, di lan la taxaw fee di jooy am na lu ko metti booba léegi pour lan lii rek moo fi rey jigéen ñi jigéen boo fi dee lii woo ko rey franchement affaire bi doy na waar lool lool man franchement li moom j'apprécie pas du tout joor tamit waaye oh, yéen joor ban façon nit la lii moo tax ñu naan xeetu góor euh, xeetu jigéen ak jigéen baaxul parce que c'est pas sincère yeneen ci yàlla mosul si xeet bu mel nii Franchement, ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. waaw bon le reste on peut gérer bon dañuy jàngal li si gën a jàngal si jàng àdduna mais man moom su ma sañoon ñu xoolaat bu baax euh, comment dirais-je ñu ni bu baax affaire de wujje yi nii ocu maanaam affaire yu si teg yëpp parce que sénégalais moom boo koy won dañ koy won loo xam ne lii bu ko defee da siy rey lii da na lu baax la c'est vrai que là on montre le pire lu li li jigéen dund ci néegu sëy lu muy métti mais un autre facette quoi j'aimerais bien une autre facette ci wujje au moins ni yi mën ci jàng naan ah lii de waaw mooy loolu lu baax la mën nañ ko def waaw genre c'est c'est intéressant noonu daal j'aimerais bien que ça se fasse leen euh, juste maa ngi excusé wu ak leen leen leen rek li ma ci bëgg a dolli parce que comme ni ñuy jàngalee jigéen ñi noonu lañu war a mën a jàngalee góor yi imagine-toi depuis le début Cheikh di tromper Lalla waa c'est normal jullit la il a droit jusqu'à quatre femmes ok mais di ka di andi sa gel fii sa biir kër sa kaw jigéen si kaw sa kaw jabar hmm? sa jabar dem ba xam loolu yëpp mu métti ko mais loolu mënul rey nit franchement parler imagine toi góor yi peut-être naan ñi jot a def loolu seen jabar xam ko amee si feebar jóg si feebar bu xam ne xam nga on sait pas daal si feebar boo xam ne ci problème problème boobu la ko amee franchement parler neexul si xol neexul si xol te defe naa ni ñu war a mën a jàngalee jigéen ñi gis seen bopp noonu nañu war a mën a jàngalee góor yi tamit ñu gis seen bopp franchement moi je demande bien ndax ndax en fait li dinañ bàyyi xel si loolu même bu dee ok réalité euh, réalité nañu jouer moom nañuy wane et tout je suis d'accord parfaitement d'accord ok mais ñàkkul àdduna bi am na réalité boo xam ne c'est pur en fait dëgg rek lu mo lañuy dund quoi dëgg rek maanaam si respect amoo basé respect je me demande bien lii fan lay mujj diggante ak la ak Cheikh mi parce que bon ku mu doon keneen sama genre yi nañ bu yàgg franchement sax moom c'est c'est c'est insupportable franchement nañu xoolaat affaire yi daal su ma sañoon ñuy bon xaw ma ndax loo xam ne lu ñuy appliquer la wala je sais pas mais franchement foofu moom métti na ma lool lool lool lool lool sax parce que maltraitance la faite aux femmes loolu laa ko jàppee daal nit ku nekk tamit instant bi dañoo nekk niñ koy waxee rek comme ni ko jeunes yi di waxee nekk dans euh, vingtième siècle donc euh, toog tamit di muñ loo xam ne bon je sais même pas ban njëriñ la ëllëg tamit ba am si la tey ji am si feebar boo xam ne kenn xamul fu mu lay yóbbu dara jaru ko de franchement man sama xalaat boobu